ak ibra faati mi le kenn dul fàtte te xam ne dee ko dox di fàtte ak madu ndumbe mi le dul yàbbi te xam ne kenn daaw ko seex bay yàbbi ak doomi anta jile mel ne jant te xam ni kat mi ngi meloon ni bant aadama gi yaa ko defoonu sàll yal na ko yàlla dolli may gu sell masamba joobi ta ngi dee fi joobe te yaa ko may may gu ko dee fi joobe tey Ibra Saar it ko fal may ko ngërëm ba képp nit di ko siyaaraa ko gërëm may rekk nga am amoo ku bon gaa ma tudd yi ma tuddul yépp gën ñi nga defar mbàkke ma nee lim ci kayit ma nee boole xam defar nga gaa yoo xam ni sax xamoo leen defar nga gaa la xamit nga xam leen defar nga say bokk defar aw jaambur ba ñépp jag nga jàpp nag sa njaambur yaa tax bawal aki kajoor ak njaambur di def yiw ku la si kël dub jaambur ak cant war nan bu wér nun ñii la ëw li mu nu war war li mu lay wara ko war nanu laa sant bu wer yow ban ba nga war a sant yàlla ak yonen ba sant nga kët cant gu kenn santul waande yëgal ni it samay gi tuutul sang bu nekk yàlla may na koŋ may waande mayul ab sang may gi mu la may sang bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la may sang bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la may sang bu dul yow ay yëf la ko may yow na dalaa sopp ba jëmmam la la may bu yàlla doonus ndaw ma xam ni yaa ko jël sang ya nag fabi yëfam séddoo ko jël moo yow mi jël jëmm ji nang koy sante xanaa di sant ka waree luy sant santal te santaane la géeyub cant te ko la sant le si nang ko sant fam naa samay mbir jox la dimbulee si la te ku déggal dikk dimbuli si la woo naa samay rakk te woo samay mag ci sa liggéeyub cant bi ku dikk jag woo naa samay bokk yu ndaw yépp ak yu mag ci sa liggéeyub cant bi ku dikk bég woo naa samay bokk yu góor yu jigéen jëme ci yow mi jubalu góor ak jigéen ku dikk nag boppam ku dikkul boppam man dikk naa te maa ngi lay sopp gëm